laylatu mawlidin nabi laylatu maxwiriya bi laylatu maxwi taabi wa toxri zitta athumi waaye guddi gi moom dayoom day duggaale ci dayob boroom guddi gi kenn mënulaa wax fu ab dayoom toll fu wàccuwaayam toll la cheikhul xadim waxoon ci boroom guddi gi rekk lañ mën a wax ci guddi gi lam waxoon ni maqaamaatu xayril xalqi an gayri rabbihi mugayabatun fal taqra an surata najmi sa muqaddamaatu lam daax dafa wax ni maqaama yi yonent bi sallallahu sallam amee moom ngeen ji mbindéef ku dul boroomam rekk lu fàddu la ci yow xamoo ko maqaamam yonent bi ku yàlla mi ko bind dafa fàddu ci yow te nee na loolu boo ko weddee fal taqra an demal nga jàngi suurata najmi wan najmi isa hawa ma dalla saahibukum wa ma xawe muy saar bu yéeme boo xam ni yàlla mi ngi ci nettali al isra wal miraj muy ñaari voyage yooyu nga xam ni benn bu ci nekk rek lu extraordinaire la nit kese mënu ko te voyage bi ci njëkk rek mooy jóge màkkatal mukarram jóge màkkatal mukarram dem Jérusalem ci lu matul fanweeri minit diggante bi ñuy bëgg a salaatu ak bi ñuy salaatu nga war cee jóge màkka dem Jérusalem loolu c'est incroyable mënul nekk ci nitu ordinaire yonent bi sallallahu alayhi def ko ñu ni déet nga jóge fa def almiraaj te mooy dem sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa sidratul muntaha jibril mi nga xam ni sax yàlla daf ko bind ci leer boo xam ni matière raxu ko daray matière raxul ndax xam ngeen malaayika yi xalaqahumullahu min nuur yàlla da leen a bind ci leer te leer muy li ñu wax lumière xam ngeen ni lu kiimaane la lumière bi ñu yàlla baaxe rekk fii ci àdduna ba scientifique yi man koo créer ba mën a leeral baas bi lumière bi rekk yéen ñi jàng xam ngeen ni vitesse am lu lu doy waar la vitesse lumière ndax loo xam ne nii day daw trois cent mille kilomètres waxuma kilomètre heure de trois cent mille kilomètres seconde mooy vitesse lumière trois cent mille kilomètres seconde seconde bi mën na ci xëtt trois cent mille kilomètre loo xam ne nii mën na romb Afrique dem Europe dikkaat ci benn seconde lumière gaawaayam noonu la demee te loolu leer la gu ñu xam fii rek ci àdduna mooy leer gii ñu mën a teg loxo di ko gis ana leer gi yàlla binde kon ay malaayikaam ban xeetu vitesse la am moo tax malaayika yi seen gaawaay kenn mënu ko misaal ci lu matul cers malakal mawti mën na cee faagaagal àdduna rayandoo ñépp kenn ku ci ne mu téye sa ruux parce que vitesse ba c'est extraordinaire jibril alayhi salaatu wasalaam planète yi nekk ci univers bi yépp mën na ko lëmbe ci lu matul looy xayma yow ci vitesse lumière yi ñu xam fu ne mën na faa teg tànkam moom jibril alayhi salaam kon leer googu leer gu am am doole la waaye terewut jibril àggul sidratul muntaha te yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam àgg na sidratul muntaha ndax dañuy dem ba si yàgg jibril ni ko fii mësuma koo weesu su ma ko rombee damay seey ci sama leeri borom yi moom alayhi salaatu wasalaam mu xët dem ba àgg ci boroomam xaaba xaw ni aw àddina fa kaana xaaba ni aw adna mu dem ba diggam ak boroomam xaw a tol ni fitt bantu fitt bi ak buum giñ ci taq ni nu jige yoo xaaba qawsayni noonu la jige yàlla yàlla ne aw àddina wala sax lu ko gën a jige jige na ko noonu yàlla sun borom jox ko nuyoo ba mu war a nuyoo boromam subhanahu wa taala te mooy attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawaatu lillah ba mu fa àggee yàlla fay ko nuyoo ni ko assalaamu alayka ayuha nabiyu wa wa barakaatu yàlla kenn du ko ñaanal jàmm mu jëlaat ñaan nga delloowaat ko boppam ni assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin parce que yàlla mooy assalaam moo tax nuyoo ba delloowu ko yàlla yàlla moom nam ko nuyoo mooy lépp lu baax lu teey rek yàllaa ko moom attaxiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu lillah ba ko sun boroom nuyoo assalaamu aleyka mu ni assalaamu aleyna wa ala ibadillahi salihin kon kooku mooy yonent yàlla muhammad mi nga xam ni bu ñu sukkandikoo foofu rek mën nañoo wax ni kon ak guddeem moo gën guddi guddul moom tey darajay guddi ga màggaay gaa tax suñ boroom lëm ko waxul kenn nu mu toll ni mu lëmee maqaamaam moom sallallahu alayhi wa sallam ba kenn xamut nu maqaamaam toll moom lañu ñu sëñ di junj foofu nag ci bayit boobu ci muqaddimaat di wax ni maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi mugayabatun fal taqra an najmi boo demee ci suratu naj mi rek dana la leer kon ñu ngi ci ziar mbokki taalibe yépp rawatina nag daayira Touba Tawfiq bii nga xam ni ñoom la yàlla tawfiqale fii ci gox bi ñu koy taxawal di ziar seen jëwriñ yépp daara ji ñépp ay jëwriñ lañ macha allah ñépp di suñuy wëllëre waaye bu ñu ziaree sëñ xudar jëwriñ xudar jëwriñ xaadim silla ak jëwriñ Murtala danañ ñu mën a yóbbaaleel ñëpp wàllu njàngum xasida bi tam kuréel gi yëpp ñu ngi leen di siyaare ñoom ñëpp suñuy wëllëre leen sëñ Mamar sëñ Abraham sëñ Ablaye bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaara di ñaan guddi gi lépp luñ ci dalal rek yàlla bu ci kenn ëpple daayira Touba Tawfiq waaye itam di xuus rek ci sëñ Moustapha mi bàyyi léegi fi mu bàyyee témoin yi daraja ji nga xam ne alayhi salaatu wassalaam amee na ko ak warma jiñ ko war a jox ak wàccuwaay biñ ko war a teg ak sax giñ war a sax ci di ko gàmmul xam ngeen ni seexul xadim radiyallahu anhu moom gàmmu da ko dëkkaloon ci ak dundam foo fekk ku fekk ku am yërmande su rombee ci mbedd mi gis ku ñàkk yërmande di néewal doole ku mu ëpp doole hmm, am yërmandeem da koy puuse du mën a romb loolu du ko mën a seetaan faw mu tax taxaw défendre ba loolu deñ xeex yi lislaam doon def yonent bi sallallahu alayhi jiite ko yépp wàccuwaay boobu la am mooy fekk na ñu ñàkk yërmande ci doomu aadama yi muy yéefar yi lu leen neex def ci kaw suuf ñu yéene nit ñi jàmm bëgg àdduna am stabilité ñu woo leen ci jàmm wuy siwu leen borom bi subhanahu xamal ko ni ko ñii xeex rekk ñooy tax ñu mën laa wuy mu def xare yi mu xare ba installé islaam indil ñu juróomi ponk yi yooyu yépp mat julli or natt azaka dem makka ak ba ko jiitu te mooy ashahadataani muy ñaari baati seede yi juróom yi muy juróomi ponk yi nga xam ni nit ki daf koy gëm di ko pratiquer bu njëkk bi day nekk ci sa xol ci jamono bu nekk moo xam da nelaw moo xam da ngay yeewu moo xam yaa ngi ci toilette bi moo xam yaa ngi ci waañ wi moo xam yaa ngi lekk moo xam yaa ngi naan bu njëkk bi du deñ ci sa xol moom saa bu génnee ci sa xol rek génn nga ci lislaam saa boo ko noppee dund rek génn nga ci lislaam te mooy ashhadu an laa ilaha illa allahu na anna muhammadan rasulullah bëgg ku ko yàlla bëgg tax mu lëkkale turam ak turam nga xam ni li lay dugal ci lislaam mooy seede ni yàlla kenn la waaye seede ni muhammad ndawam la ginnaaw bi nga ko waxee ci sa làmmiñ da nga koy dund ci sa xol saa bu génnee sa xol rek génn nga ci lislaam kon bu njëkk bi da ngay moom mbubb la moo dul summi benn yoon ñaareel bi te mooy salaat muy julli kooku doo takkoog moom waaye bis bi nag am na ci waxtu yoo koy def mu toll ci juróomi waxtu inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta mooy ñaareel bi takkoo waaye nag bis bi ni nga ko def lu mat juróomi yoon bu ñetteel bi te mooy natt azaka moom it sa dund gépp mën nga ko cee def mën nga ko cee bañ a def ndax dafay aju ci am am ki ko am at mu jot daf koy def mu wuute nuñ koy génnee ndax asaka mbay kay kay bay la concerné asakay alal ña am alal la concerné bu dee ci wàllu mbay tamit wuute na muy kiy bay di roose ak ki nga xam ne nii yàllaa ko tawal mu meññ nit ki mën na koo def ci ak dundam mën na koo bañ a def dañuy nettali ni Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu mësta génne asaka ndax daa mësta dajale luy waral asaka mësu koo dajale asaka ki koy joxe day fekk li mu yor mu yor ko ba déwén ki nga xam ni day denc alalam fekkante ba déwén mu génne nit ki mën na koo bañ a def ci dundam bu fekkee la muy am <laughs> denc ko daf koy joxe nan lay fekkante waaye itam ba ca topp muy woor weeru koor kooku at mu nekk la ko nit ki di def benn yoon lay dikk chaque année doon benn weer am beneen bi ci topp boo xam ni sa giirug dund benn yoon nga ko ciy def su fekkee mën nga ko te mooy aj màkk kon juróom yi mooy lislaam waaye ndax tax na mu mat ndekete am na loo xam ni bu nekkul ci xolub jullit bi yooya du mat te day yàqu sax far ndax yooya moom la ñuy tudde al amal as saaliha muy jëf yu baax yi tey nag sama waxtaan day jëm ci ñi nga xam ni dañuy diingat gàmmu xam ngeen ni julli ak woor ak natt asaka yooyu ma wax mooy pierre yi nga xam ni mooy cinq piliers yi lislaam pour pourtant yàlla wàcce na aaya boo xam ni waxu ko ay naafiq waxu ko ay yéefar ay jullit la ko wax ay saxaaba sax la ko wax far ñoo xam ni ñoo la dàq julli foofu ñoo la dàq woor bu dee añ màkka ñoo la ko dàq dàq laa génne asaka dàq laa woor weeru koor pourtant sun borom wàcce na aaya di leen wax ni ñàkk woor ma yonent bi mën naa yàq seen julleeg seen koor ak seen natt asaka kon ko foog ni diine ji julli ak woor ak natt asaka ak cinq yooyu rek la yam ci te foo fekk kuy wormaal yonent bi ñàkk ci moom sago nga ni ko bidaa nañ dem ci suratul xujuraat sun boroom moo wàcce aaya wax ak sahaaba yi ni leen yaa ayuha allazina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi yéen ñi gëm yéen ñi gëm waxut ak naa yi yaa ayuha allazina amanu bu leen jiitooti yàllaa kob yonentam laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi bu leen di jiitoog yàllaak yonent bi ci dara lépp lu ngeen ciy def defati na ngeen xaal ndigalul yàlla ak ndigalul yonentam bi alayhi salaatu wasalaam gis ngeen ca biir saar boobu borom bi def na ba ni leen yaa ayyuha allazina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabiyi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin ak taalibe lool de la Cheikh Ibra indi kër Sëñ Tuubaa gaa ni bidaa lan la wax yéen ñi gëm saxaaba yi bu leen yëkkateeti seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi ngir daraja ji yonent bi ame bu yonent bi waxati ngeen ciy teg baat bu muy waxati tam ngeen di ruube fu mu yëkkateetee kàddoom na ñépp ni cell laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi moom leen bind ca barabu yonent bi ca ma wasalaam ca a war ca jumaam ja mu tiim xabroom ba yaa ayyuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi yéen ñi gëm bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin waaye itam bu leen di werenteeg moom ni ngeen koy defante seen biir bu ne benn ngeen ni fukk bu nee dama ni nga ni ko maani bu leen ko defati ay jullit lay waxal de ay saxaaba yu la dàq julli dàq la woor laa wax dàq laa natt asaka ñoom lay yar seen comportement ci kanam yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàllaa ko sañ yamu ca mu ni leen an tahbata amalukum loola mën naa yàq seeni jëf gis ngeen seen julli yi ak seen woor yi ak seen natt azaka yi ñàkk wor ma yonent bi mën na koo yàq wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an tahbata amalukum seen jëf yépp mën naa yàqoo ci ñàkk war ma yonent bi muy wax ngeen teg ci baat wala muy wax ngeen di wax ci suuf di ruube wala di ko jiitu ci mbir yooyu yépp jëf yi ngeen di jëf jàpp ni noon la ñàkk ko war ma mën na ko yàq an tahbata amalukum wa antum la tashurun te du ngeen ci yëg dara du ngeen ci yëg dara mën a julli mën a woor foog ni loolooy diine ji yam ca ñàkk war ma yonent bi yàq seeni jëf te du ngeen ko yëg wa antum la tashurun